ñetti yoon. def ko addi yi maam Thierno Ibrahima. def ko addi yi maam Thierno Ibrahima. ak mboolem ñi aju ci moom te jiitu. ak mboolem ñi nga xam ne aju nañ ci moom te jiitu. rawante na ñi fi daan teew nag te jiitu ñu ca barab boobee. rawaate na ñi nga xam ne daan nañ fi teew te jiitu ñu ca barab boobee. gannaaw nuyoo bi siyaare bi. sëriñ bi nee na ginnaaw nuyoo siyaare bi. borom daaru mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku. borom daaru mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ci ci jamono yii nu toll nii.